ni lay woon rek nit ku baax la gis nga ko ñu wax Ceerno Habib Kandji baayam moo doon imaamu ratibu Jurbel daje fi ak sëñ Moustapha bi xam ni mu nga jóge ca sang bu tedd ba kii waa kër Cheikh Seydi El Hadji Malick la kii waa kër Xaadim Rasul la ñoom ñëpp nu àndandoo daje fi xam nga loolu moo lay won mbaaxu Saaliwu Bodin

riche jamono di dox ba mu dellu siwaat fii deux ans après dajeeg Jacques Boré Jacques Boré takk ko yàlla mi xam ne dara taw ko benn doom rek la am nag mooy dox xale bi doon wax léegi yal ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla yéeg ci barsaxu Xaadimu Rasuul